ni jox 635 francs mu yóbbu ko 1000 francs ba bëgg ko yóbbu 1400 monsieur le ministre wax ma fofu fan la toll motax président Macky Sall ñew défarat dortoir di def ay boulangerie di défar ay di défar scanner pour lepp lo xam day améliorer sen vie yokk place tabax ay ay ay ay ay prison yu bess kooku mo xam ak ak yelef doomu Adam. tu as raison li fi aw mosu fe am motax nga taxaw diko défendre kañ nga ñibisi yàggul lu taxoon nga daw àdduna na ñu bàyyi justice bi ñuy jël naan nekkul dañ koy instrumentaliser du xaman ne mu tuddee yéen toog leen yéen ba ngeen fi nekkee léegi cinq mois ngeen def yéen fi def lu kenn mus sa def DPG nga ne maa làkk loolu du viole droit de la ñun viole suñu àq ak suñu yelleef nañu waxante dëgg DPG viole leen àq ak yelleef doomu aadama yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ñu waroon a xam fan ngeen jëme jëme askanu Sénégal loolu weesu na violation monsieur le ministre ñun xam nañ ne fi nga toog di nga jooyante lu bari ñun gëm nañ ne justice Sénégal dafa indépendant parce que bi fi président Macky Sall nekkee ku deful dara doo dem ci yoon waaye li ñuy bañ waxaguñ na def nga wala defoo ñu commencé laa am fun la étiqueté wala en premier ministre bu génn ne kii nangam dinañ nangam non du noonu Sénégal fi mu ne nii li fi jëlee Macky Sall du fi bàyyi keneen li fi jëlee président Macky Sall du fi bàyyi kenn. kon nañu nañu nañu rafetal tey wax dëgg wax dëgg mun ta weesu président Macky Sall xool li nga xam ne aw askanam bi ñu ko ko laajee bi mu ñëw ci nguur gi dañ koo laaj waxul dinaa dinaa fi dindi dund dina def ne dinaa teg Sénégal ci yoonu développement parce que tey jii moo tax kenn mësu ko vaar président Macky Sall développement boobu mu waxoon teg na ko ci Sénégal développement boobu mu waxoon sénégalais yi gis nañ ko yëg nañ ko àdduna bi gis nañ ko waaye yéen seen cinq mois yi saf na ci yéen sàpp parce que da ngeen a wax lu bari te jëf ji tuuti commencé gu leen dara man nag ñan naa yàlla ngeen ngeen ngeen doxal parce que bu ngeen doxee ma dox waaye li ma ci jaaxal mooy yéen da ngeen a commencé gut yore wax ji rek ak yore na saf bi rek ak na saf dina saf dinañ jëli jëli leen te bàyyi wax ji liggéey leen te bàyyi coow li nit ñi sonn nañu xiif nañu mar nañu président Macky Sall li mu fi defoon na néew dindi nañu ko. subvention yi mu tegoon ci dundu askan yi nga xam da doon OF dind ngeen ko bourse de sécurité familiale xalé yi doon liggéey dind ngeen ko wa lan ngeen bëgg dangeen ñoo bëgg sul ta te ñu du mëna nekk de monsieur le ministre dina voter projet de loi bi ndaxte ku ne gis na né droit de l'homme yi ñi ko doon xex bu ñëk dañ da jëlé ay financement ci all bi ñew fi bëgg ñu dugal ci lo xam du suñu culture wala du bokku tak suñu diiné wala bokku tak suñu doxalin kon dama koy voter ndax nak

Madi Damfara, suivi de Aïssatou